bismillahi irrahmani irrahim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki internet yi maa ngi leen di ziyaara di am mbégte ak kontaan ci jàkkaarloowaat ak yéen ci émission bi ñuy amal saa su ak yéen mu tudd déglul sa njariñ muy ame ci seen seen boobu di Modou Modou TV déglu sa njariñ nag boo ko déggee concerné nañu ñëpp muy ndaw ñeek mag ñi góor ñeek jigéen ñi déglu sa njariñ nag tey émission bi ñu indi woon dafa màcc jëm ci wàllu yar ak tarbiya la ko arab di wax muy parents yi nan lañu war a yare ndaw ñi ba ñu réussir seen àdduna ak àllaaxira ndaw ñu tamit nan lañ war a yaroo ba réussir seen àdduna ak àllaaxira émission boobu lañ indi woon tey war kaa faram-fàcce incha allah yar nag buñ ko waxee nekkul ne comme niñ ko aada woo xamee rek ay dóor la wala ay saaga wala yu demee noonu waaye yar dafa nekk loo xamante ni bii lislaam dakaa jàngale alxuraan jàngale ko sunna jàngale ko yar nag li ci jiitu ñeenti ponk yi nga xamante ni bii munul munul manque ci yar muy parent bi dakaa war a xam parce que bu amee ay doomam mu yar leen ci yar boobu noonu mu yarub diine bu ñuy wax yar ba ca jiitu ëpp ca solo muy ndaw li da nga koy yar xamal ko lan mooy yéene ju baax arab di ko wax an niyatu saaliha aw an niyatu saxiixa muy yéene joo xamante ni bii yéene ju baax la ndaw li dafa ko war a xam bu xàmmee nga xamal ko lan mooy yéene ju baax yéene ju rafet loolu nag day dépendre ci parent bi parce que parent bi bu xamul loolu noonu du ciy mën a yar ndaw li parce que tamit dugalu ko ci fu ñuy jàngalee diine mu man kaa xam loolu noonu boo ko boo boo ko boo ci boo ci euh, profité wul rek sa ndaw loolu nga yar bu màggee mën naa mën naa mel neneen mu metti la fekk na ca yar ba la ndax dañuy xool bu ñu xoolee garab rek garab garab bu ndaw boo ko amee nga koy jubbanti ba mu nekkee ndaw di ko suuxat su màggee rek dina jub mais boo bàyyi ba mu màgg nga bëgg kaa jubbanti day andi problème kon loolu mooy premier ponk bi nga xamante ne bii parent bi war na kaa xam yar ko ci yar ndaw li ci biir kër gi mu xàmmee lan mooy yéene ju rafet mu koy jëfee ba ca topp mooy alxuwatu alaaliya mooy ak njàmbaar njàmbaar gu kawe ndaw li da nga war a jàngal mu jàmbaare bañ a yaafus ndax yaafus baaxul loolu moo ñaareelu ponk bi ñetteelu ponk bi nag mooy ar ba moom la arab di wax ar ba mooy xemmemteef kon yow mi bi war ngaa fexe ndaw am xemmemteef boo xamante bi bii bu kawe bu bu bu kawe lay nekk boo xamante bi bii ndaw li da koy amee mu nekk ak moom mu màggaale ak moom màggaale ak moom ba muy doon bu ko dina réussir. xemmeemteef nag mooy tey jii ndaw li nga xamal ko loo xamante ne bii lu mu bëgg rek lu mu bëgg ci lu baax mu def ci ay ay ay ay yitte ak ay góor góorlu ak njàmbaare ba am loola noona def daal beneen bi ci mujj nag mooy arrahma muy yërmande ku ne xam na ne yërmande moom nit yi bu ko amee rek ak mbaax da ko yomb ak mbaax da ko yomb yërmande nag ci lépp lay nekk. ci lepp la lay man na man na commencé ci lepp ndaw lo xam dang da ci kër gi def ci mom yërmande ba xay xaaj bi sax amna na sax ray mbelantaan ci kër gi loolu lepp ab yar la bo xamanteni bi dang koy sos ci ndaw li di jangal jàngal haasihi umur al arbaa nak isa tawaafarat fil xalbi tayassar lahu umur al xayri benn waykat dafa wax ne buñu wax imam abdul Khayyim Imam imaam Ibnul Xayyim dafa wax ne ñeenti mbir yi nii bu bu bu bu dajaloo ci xolub doomu aadama ak mbaax da ko yomb ñu faram fàccewaat ko mooy yéene ju rafet ak ak njàmbaare ak xemmam téef bu ndaw lay am ak yërmande joo xamante ni bii yaa koy yaa koy def ci xale bi mu màggaale ko ndaw nag buñ buñ sukkandikoo suñ mag ñu baax ñi ñi nga xamante ne bii ci la ñuy ñooy suñu rétroviseur ci la ñuy xool di ci roy donte mënuñu leen a dab mais ci ñoom nañu jàngate ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba jàngale na ci lu am solo loo xamante ne bii képp ku ko xamal sas ndaw bu màggee de doo ko réccu Cheikh Ahmadou Bamba bind na xasida yu baree baree bare yoo xamante ne bii ci éduquer ndaw la jàngal ko ab yaram ak diineem ba nga xamante ne bii bu màggee dina réussir te du am benn problème biñ ciy jël rek mooy bi gën a siiw muy tasawudu sixaar muy yóbbulu ndaw ñi la ko la ko si amul Bamba tuddee ak beneen bu ñuy wax jës bu sixaar mooy yi ni moom mooy mooy mooy ñot di ndaw ñi ba nga xamante ni benn tege joon siraatal mustaqim xasil ko ba mu koy débee dane yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu an il huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa wajtani bu sa saqaawa Cheikh Amadou Bamba nee na ee eh yéen ndaw ñi ee eh yéen ndaw ñi la wax kon la muy wax am na solo mënoon na wax yéen ndaw ñi rek waaye dana ee eh yéen ndaw ñi kon la muy wax amal na ko solo te ndaw lu ko déglu wala para boo xamante ni bii jël nga sa ndaw xamal ko loola noona incha allah bu màggee doo ko réccu te moom tamit du ko réccu laata tastaxilu anil huda la leen wax bu leen soxlawoo yéen ndaw ñi lu dul ak njub kon loolu dañ ciy dégg ndaw warul yàkkamti warul ne damaa gis samay moroom ñuy liggéey damay liggéey warul ne damaa gis doomi doomi diw sàngam mu am nangam dama war liggéey pour am ko waaye ndaw si Amadou bàmba dafa wax ne bul soxlawoo dara lu dul ak njub ak njub rek nga war a soxlawoo wabil ulumi staxilu bi nga soxlawoo ak njub ba pare nag yow mi parent bi war a jàngal ndaw li jàngal ko mu xam lan mooy diine lan mooy yàlla am bëgg-bëgg ci yàlla fastaxilu bil xifzi wa tilaawa bi jàngee ba pare nag ci biir jàng moomu na ci na ci nañ mokkal te tamit na ko yar ci muy liir ndax liir lu am solo la te jamono bii dafa dafa dafa sooxe ndaw ñi liiratunu déglu moo leen gën a liir te ndaw dafa war a liir ndaw dafa war a liir waxatuma laa nag mag mu tegaati tamit lu am solo muy wajtani bu sa shaqaawa te ngeen moytandiku yéen ndaw ñi palaas yi wooy texee di te palaas wooy texe di jamono bii la gën a la gën a la gën a bari jamono bii la gën a bari ndax boo nekkee parent doo doo doo doo doo surveiller say say say doom di xool fi ñuy dugg ak fi ñuy génn ak ñi ñuy àndal loolu noonu day nekk loo xam ne day poser problème ndaw li bu màggee. ndax bu tàmmee ànd ak ñoo xamante ne bii jubuñu rek bu yagge day dëng lol mom ñëpp ko xam moo tax sëñ si Ahmadou Bamba ne bu majaali sa muy lu am solo di beneen ponk bi mu waxaat lu am solo walaazimu man la yazaalu abida li illa illaa hudaw xayda Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu nee na ndaw li da nga fexe ba moom bu mu tax bu bu bu bu ñu kon terena muy takko tere na na kon muy takkoog ñu bon walaazimu man la saaloo abida neena na ngay fexé ndawli di takkoog ñoo xamanteni bi duñ den di jaamu yalla ñukoy koy wommat jëmale ko ci yalla suñu borom mune ne yow ndawli nak nag yow ngi lay wax ni yow mi nga xamanteni bi yaay gor gawantu ndaw ak ndaw nga yagul nga gawantu si xam li nga wara xam jub nee na boo màggee de yow ndaw loolu noonu di nga noppalu di nga nekk mag moo xamante ni bii mag mu noppalu ngay doon waaye boo boo boo boo fogee sag ndaw def ci lu la neex ba màgg bëgg a bëgg baax day metti waaye tamit mag ñooñu nga xamante ni bii dañoo sànq seen a ndaw si Amadou Bamba am na lu leen wax am na lu leen dénk nee na ca bayit ba ومن تدارك الذي قد فات من اللغة وعمر الأوخات بتوبة النسوخ والإقبال إلى الإله فاز بالكمال Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu nee na képp koo xamante ni bii mag nga te sa ndaw nga sankon ko te nga bëgg a sa ndaw woogee neena wa amaral al awhata neena nga dundal waxtu yi waxtu yi nga dundal ko waxtu yep nga koy chargé lu mu koy yobale ndax waxtu wu dikk waxtu wu dem dotul ñewat ñu ñu baaji xel bu baaxa baaxa baax bi tawbatu nasuhi nak la wax neena nga and ci ak tub gu sel wal iqbal ak jublu yalla neena ilal ilahi faza bil kamali neena boko defé de di nga am texe go xamanteni bi bii gu mat lay nek muy tagone hakum nasihati lakum fatarbahu dunya wa uxra ma khawin aflahu neena jël leen li muy muy samay samay samay laaya bir sama digënté ak yeen neena bu ngeen ko jëlé de di ngeen bénéfice àdduna ak àllaaxira waaye nag bu ñuy bu buñ dikkaatee ci xale bi xale dafay soxlawoo jikko ju rafet te jikko ju rafet yow parent bi yaa ko mën a def ci moom lépp ba mu xàmmee ndax xale day màgg ci lu mu tàmm xale bu tàmmee dara rek màggaale ak moom loolu noona day nekk loo xamante ne bii lu nekk ci moom lay nekk te du yomb dindi ci moom lu mel ni mer xale waru waroo koo tàmmal mer même même même bu dee mer ci nit la bokk sax ak kontaan waaye tamit waroo ko tàmmal mer ndax bu ko tàmmee rek ba màggaale ko loolu noonu day day day day day des ci moom day des ci moom ak xale boo xale tamit waroo ko tàmmal muy muy aajowoo daal lu bari lu mu gis rek nekk loo xamante ni bi da koy bëgg xale waroo ko xale waroo koo yaree noonu xale waroo koo tàmmal loolu daal. ak yakamti tamit yakamti day day day day day yak yoonu ndaw ndaw ngorul yakamti li olof di wax naan yoonu ndaw du gaaw yoonu ndaw du gaaw bu gaawee rek eh, man man nga fété la juggé jóge yoonu ndaw du gaaw day def eh, comme comme comme comme comme taw rek tép tép après waaye bu né yuréer rek yuré rek baxul ndaw du ma sha allah. nee yi yii nak nag bu dajaloo ci ndaw ci ci ndaw li. nee na day jafe mu ci moom bu màggee waaye tamit ndaw su nekkee ndaw da ko war di moytandikuloo ay caaxaan palaasu caaxaan daal comme palaas yoo xamante ni bii du fa dégg yàlla ay caaxaan dafa am nga koy moytandikoo ndaw li bu màggee du ko du ca continuer ak yàq yàq dafa nekk loo xamante ne bii jikko ju bon la boo ko yaree ndaw li rek bu màggee euh, moom dina dina ko rëcc tamit di nga ko rëcc ndax dina bëgg mu denc moom te du mën denc moom ndax ndax tàmm lay nekk ndaw daal buñ xoolee ndaw lépp loo xamante ne bii bëgg nga muy lu baax danga koy def ci ndaw li lépp loo xamante ni bii lu bon la danga koy da koy fexe di ko éviter di ko di ko ko tere di ko ko tere ba xamante ne bii du ko tàmm ba tey tamit li ñuy wax misik musique tamit nga ko éviter ndaw li musique nga ko éviter ndaw li parce que musique baaxul dalay yóbbu ci leneen day wowal ab xol ku nekk xam na ne musique moom boo yàggee ci yow rek day wowal sab xol ba nga xamante ni bii yàlla dootu la ñor ak déglu loo xamante ni bii lu bon la ay caay-caay ndaw war nga kaa éduquer ba nga xamante ni bii du toog sax fu muy dégloo wax loo xamante ne bay caaxaan la wala muy toog ci ay mag ñoo xam dañuy wax ay caaxaan mu koy dégg ndax loolu noonu day day day travail ci moom daal day des ci moom ak li nga xamante ni mooy biddaa biddaa tamit nga koy éviter di ko def ci kanam ndaw li wala nga koy xamal wala nga koy jàngal daal ak place yoo xamante ni bii place yi place yi ay ay ay caaxaan lekk la ay bon bon lekk lañu fay defee yu mel ni boîte yu demee noonu yéen a ma ko gën a xam. yooyu yëpp danga koy war a moytalikoo ndaw li nga xamante ne bii moom nga yar loolu lépp nag ndaw li bu ko tàmmee yi wax yépp ndaw li bu ko tàmmee day jafe ci moom mu tàqalikook moom bu màggee loolu noonu ma li ñu wax lépp ndaw li bu ko tàmmee rek ci ak ndawam bu màggee day jafe lool mu tàqaliko ak moom ba amul dimbalal yàlla lëg dëgg dëgg dëgg du mën a ak moom ndaw li tamit war nga kaa tàmmal muy bañ di jël war nga tamal war nga tamal muy bañ di jël dal waro koo tamal muy jël muy jël ndax bu tamé jël lek su maggé jël mo xey gëna yomb bu kon dé ko dé ko tamal joxé comme gokoy édiqué bo ñëwé né ko jëlal li joxal mako ko diw sàngam jëlal li joxal mako ko diw sàngam bu ta bu yaggé day tam joxé ke mu tam jël dal yoy yëpp ay ay ay secret la yo xamante bi euh boko xamul lek man na andi ndaw man na andi ndaw bu màggee ay problème bi ci gën am solo nag gën maa gën gën maa gën maa eh, gën a gën a am importance mooy ndaw li da nga kaa war a di di tere ay fen muy muy muy muy muy muy nar ndaw li da nga kaa war di tere fen parce que fen baaxul daal fen mm, dafa nekk loo xamante ne bii euh, lu ñu xeeb la te mu nekk loo xamante ne lu réy fa yàlla suñu borom la ndax alkaasi bu moom dafa dafa dafa rëy dafa rëy te te te ñi dañ kaa xeeb dangay soo xamante ne bii euh, daanaka lool mooy liggéeyam loolu mooy liggéeyam wala koo xamante ne tam tàmm na ko waxee mënatu kaa bàyyi di reetaanloo nit ñi rek moo tax muy def loolu noonu te nekk na lu rëy loo xamante ne bii dañuy wax ne benn fen benn fen fanweeri njaaloo lay tollool benn fen te njaaloo li ci yàlla suñu borom wax lim ci dégg xamante bi nee na kuy njaaloo dañ ca war do téeméer yar bu amé borom ko wara mo am jëk wara mo am soxna dañ ca war ray kon kon euh, lu lu lu lu reuy la fa yalla sun borom mais nit ñi lu dañ lu dañ lu dañ lu tutal nga lu nga lu lu lu lu moy moy moy lu wor moy wor lu wor wor nek na jikko lu xamanteni lu lu lu lu yare ndaw lu lu yare ndaw no lu tamit am lu lu ko yare ndaw am lu Euh, ndaw loo xamante ni da nga koy yar nooflaay mu bëgg nooflaay trop trop trop loolu tamit dafa nekk loo xamante ne bi baaxul ci ci ci ndaw yii nag buñ ko dajalee yépp moo nekk loo xamante ni mën na gàllankoor ndaw li nga xamante ni bii moom nga yar ci sa kër kon waxtu moonu xoj waaye daanaka liñ yéene woon wax lépp ëppoon na loolu kon ñu leen di fàttali bu leen fàttee abonné ci bi bu leen fàtte abonné ci chaîne bi ñoo ngi euh, gërëm waa internet bi internet yi ñu ngi doon suivre di leen jox dig daje beneen jotaay ci beneen thème ñoo ngi yéen incha allah waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin